fin de l'étude élémentaire moyen di BFM nag tàmbali na àllarba bi fukki fan ak ñaar ci weeru sulet ci mim réew yëpp lu toll nag ci 189 361 candidats ñooy jongante ngir mun a jàll ca classe supérieure mu di nag ci ab visite bu ñu amal ca lycée bu Hann ak centre bu cours Sainte Marie de Hann directrice bu cabinet bu jëwriñ bu yor wàllum njàng ak njàngale bi moom di xamle ne tàmbali na si yoon. am nañu téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom-ñeent yu toftal. kon euh, ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci lim boobu limu ndongo yi xale jigéen ñi ñoo ci ëpp ndax ñoom euh, dinañu constituer boo ko jëlee ci pourcentage bi lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar euh, ci pourcentage ci limu jigéen ñi. yooyu le kàddu la ñu nemmeeku waat itam ci autorité yi lee fële ca centre bu cour Sainte Marie de Anne ci chef de centre bi dañu xamle ne am nañ fi ñetti jury te benn gàllankoor dundaguñ ko. épreuve yi sécuriser nañ leen cela veut dire que fi ñu leen garde garder nañ leen garder boo xam ne kenn mënu ci am accès euh, euh, président jury yëpp ñu ngi président ñoom ñëpp ñëw nañu élèves yi ñëw nañu liggéey bi tàmbale na ci jàmm di ñaan yàlla mu ñu jeexale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci seen wàll candidat yi ñoom di rafetlu épreuve yi nu mu tëddee. on avait l'habitude de faire ce genre d'épreuve en classe. non non yomboon na les deux sujets étaient compréhensibles abordables et euh, c'était facile. l'examen yi nag tàmbali nañ tey jilee ci miim réew yëpp te nar nañ ko dëgmal. fi ba àjjuma fukki fan ak ñeent ci weeru sulet bi ñu nekk.